xam li ma lay bëgg a wax mooy ci laa bokk xam nga bokk ci patronat mais dirigeant yi koy yor chambre de commerce ci laa bokk xam nga patronat bi ci boppam patronat bi ci boppam xam nga nan nga ko mën a tudde mooy euh, les investisseurs les industriels parce que gis nga boo demee club des investisseurs soo leen laajee ñu ne ñun duñu patronat ay patron ñoo fa nekk mais li ma bëgg a wax rek mooy li ma bëgg a wax rek pour ñu bañ cee euh, sonn parce que loolu amul solo patronat yónnante ak malaaka ak yooyu amul solo xam nga lan moo am solo mooy li ñuy def mooy li ñuy def et je pense que may mun a yéen ñëpp ak presse bi yàgg ngeen a toog fii di kaas nit ñi da ngeen a juddu fekk leen fi te ñoom suñ demoon xool seen homologue yi nekkoon France boo demoon France ci vingt ans yi le patronat a changé plus de cinq fois boo demee Côte d'Ivoire noonu boo demee Mali noonu boo demee euh, Gambie gii sax noonu waaye léegi nag ñii buñ ñëwee xeex benn situation pour ne dañoo bëgg jub jubal jubanti jub jubal ñoom la waaye jubanti mooy liñ fekk te jubul te man ci loolu laa leen bëgg a wax ne la nañ ko jubanti mais léegi nag gars yi nag bëgguñ ma toog ci réunion yooyu hmm. te man maa war a woote réunion yi man man la loi may xam nga dama lay wax xam nga dañu dafa am lenn loo xam ne suñ texte si moo ko suñ texte si dane chambre de commerce mooy interface noonu la ko bindee entre le secteur public et le secteur privé xam nga lu tax ñu def ko établissement bi c'est un établissement public kenn mënu ko xar ñaar secrétaire général bi ñu nommé sax ñun dañuy def appel candidature jox ko ministre mu def arrêté mais patronat amul loolu patronat dañuy dem wuti seen récépissé soo bëggee dugg tey may mën a dugg bu leen neex neexee nga dugg bu leen neexee nga ne la doo dugg chambre de commerce kenn mënu la koo tere c'est du domaine public. mais mais mais xam nga chambre de commerce dafa am utilité am aujourd'hui li ñuy woowee secteur informel euh, yéen yéen yéen leen nang li ñuy woowee secteur PME PMI yu lu ci ëpp yéen yéen a leen mais xam nga le patronat rôle am c'est c'est politique gis nga euh, euh, bari na. Euh, ay renégociation yu ñu amal sur des concessions yoo xam ne dañ ko jëloon jox ko ay tubaab le patronat sénégalais a mené le combat politique en rapport avec les autorités sénégalaises ba aujourd'hui le privé sénégalais euh, mu ngi mu ngi ci autoroute à péage bi euh, mu ngi ci ci ci ñu ngi ci ñu ngi ci Dubaï ñu ngi ci Dubaï Port World ñu voté en 2016 une loi PPP Euh, di forcer di dëggal ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy le secteur privé le secteur privé sénégalais di dem ci président di plaider je pense que ñoom mënoo comparer seen rôle ak le rôle des des présidents des chambres de de de commerce xam nga man du ma la euh, jàngal ñoom seen rôle c'est politique du ma la jàngal c'est politique de promotion du secteur privé du ma la jàngal feebar bi nekk ci presse bi mm-hmm. waaye soo ma bëggee jàngal feebar bi nekk waaw dara dama lay wax rek non non dama lay wax rek xam nga ki feebar tëdd mm. nga ne ko kaay ma wax la sa feebar jafe na man maa xam suñu feebar man maa xam suñu feebar. mais mais yow waaw déglu ma la yéen ngeen existé terewul patronat bi. existé dama lay wax xam nga may mu ne il faut que presse bi man damaa jër pro formation nu formation ma ñëw leeral leen xam nga lu tax chambre de commerce am. Mhm. chambre de commerce du secteur informel rek. mooy cadre concertation totale xaar ma woon la. lu président Macky Sall wax nga xam ne moom sax li muy wax bañ ko ko waxee comprendre na ko xam nga lan la chambre de commerce dafa am neuf sous section xam nga ban la commerce dafa am ñetti section commerce bu ndaw commerce bu moyen déglu ma xam naa ne nit ñi laay waxal waaye déglu ma tuuti pour nga xam ndax dangay ngay dellu ci question dafa am catégorie un catégorie deux catégorie trois mooy commerce bu ndaw bokk na bu moyen bokk na bu mag a mag bi bokk na waaye dañoo am seeni section nga dem ci section industrie mu am industrie de transformation mu am industrie euh, de service industrie financier banque yi sont membre man tey ji membre AB APBF biy dem UEMOA man maa koy gis nii pour nga xam ne bu jël chambre de commerce ne secteur informel la. non non non non secteur informel chambre dafa ëpp dafa ah. ëmb lu ñuy tuddee entreprise xam nga secteur informel lu waa xamu ko. xam nga loi lan la xam opérateur économique petit moyen et grand loolu la xam industrie petit moyen et grand loolu la xam ay secteur informel ak bawal boole yeeg loolu ñun ñoo ci wut ay appellation pour làqu ci wala minimiser ko ah amul petit moyen grand moyen looloo ci am chambre de commerce daf leen am bu ñoom ñëpp bay di añ mën na nekk président chambre de commerce bu gaaw bu fekkee moom nee na man moo ëpp doole bu ñuy inscrire na ay entreprise am inscrire mu ne leen woote leen sama liste bu liste am gagné mooy doon président mën na nekk président chambre de commerce nekk président de CNP mën na nekk. mais yow lan ngay préconiser aujourd'hui c'est-à-dire li may préconiser mooy. Euh, lan nga man taxawaay bëgg. préconiser mooy les nouveaux dirigeants laa li may préconiser mooy patronat bi joué rôle mooy le patronat doit défendre l'intérêt de ses membres c'est pas le secteur privé des membres ñoo ñooñu lay défendre. Hmm. de ses membres adhérents dafa am ñu adhéré wu ci UNACOIS am ñu adhéré wu ci CNES am ci ko mooy dañ ci ñoo ñu la amal affaire ñoo ñooñu la yilif mais la chambre de commerce képp kuy opérateur électro euh, économique même yow mii sa registre de commerce chambre de commerce la aju du entreprise xamul suñuy entreprise de service rek mooy ca nga bokk tey mënoon nga inscrire chambre de commerce bu élection taxee nga ne de parce que am na ay patron de presse yu nekk président chambre de commerce soo demee ma wax la importance chambre de commerce HEC Paris loo xam nga. Mm-hmm. mooy école commerce bi gën a mag ci Paris. chambre mm-hmm. de commerce ko moom bu Paris. France encore France amul ministre du commerce parce que tous les règlements commerciaux chambre de commerce moo koy déterminé. pourquoi tey jii li gën a gën a am solo mooy tribunal de commerce. les juges consulaires ñan la sont par la chambre de commerce foofu dañu fi violer texte bi encore ñu ne ko suñ koy désigner na def concertation avec les chambres régionales mais Dakar dañ fa nekk ku neex sa waaye ñun na mais mais yow ban taxawaay nga doon xaar ci nouvelle autorités yi. nouvelles autorités yi mooy li fi nekkoon lu dañ ne dañoo dindi li fi nekkoon mooy nañ jël texte yi nga xam ne nii moo régir secteur privé yi ñu topp texte yi wala bu ñu ko bëggee dindi ñu bind ne léegi patronat mooy patron ñëpp. parce que conflit bi am ci chambre de commerce dafa yàgg de commencé wu ci man même conflit ma amoon ci Lamine ñaa ak ñoom du lu bees de lu bees de conflit bi moo amoon ci Ibrahima Diagne xam nga yaa ngi koy fàttaliku ak ñoom Lamine ñaa chambre de commerce yooyu moo gën a metti mm. conflit mm. man suñ conflit mettiwul de te loolu conflit bi yëpp semble de commerce Dakar la mais mais Serigne waaw euh, Bassirou Diomaye Faye bu jëlee les rênes du pays mm. mu war a ren euh, war a war a war a war a stimuler la création d'emplois mm. mu war a diminuer la cherte de la de la de la vie mm. mu war a réorganiser mm. amul jotu naan day dindi li fi nekkoon il est obligé de fair ak ñi mu fi fekk d'autant plus que euh, ñoom seen domaine c'est un domaine boo xam ne munu état mënul tëb tëb rek def ci incursion noonu non ñun dañ ko wan ne ko lii fi nekkoon boo ko fi tegaatee mooy yées dafa ñëwee fekk chambre de commerce ñu ngi ci région yi demal laaj chambre de commerce Matam ne ko ñaata emploi nga war a créer ñun vraiment ñun dañ leen a bëgg wax ñun du fii la ñuy créer am da ngay dem chambre de commerce maatam léegi laa doon wax ak moom ku ñu wax yi ma di ko wax su sur état boole ma ne ma fii man am na ci yoo xam ne mën naa ko teg mën naa créer 3000 emplois léegi imagine Matam nga créer fa 3000 emplois et dans l'agriculture productive nga dem Kédougou wax ko léegi. mu génneel la ko nga ñëw man Kaolack ma wax la ko def naa étude boo xam ne bu ñu ko defee Kaolack ñu ngi ci 8200 emplois 8200 emplois formels mais ñun am na programme bu ñu boo xam ne dañ ko yóbbu 145000 emplois mais foofu de création. emploi mais mais chambre de commerce union des chambres consulaires mën na am terewul patronat bi am. waaw kenn terewul ko ñoom ñoo bañ ñu am ñun. <laughs> dama ne la waaye dama lay wax ne la ci laa bokk maa ngi cotiser ñun bañu ñu am parce que assister ki ñu bindal na la assister ko. xam nga may mun a tamit yow da ngay comprendre ngeen bañu ñoo am de minimiser wuñ leen ñoom ñoo bëggul chambre de commerce yi am parce que dañoo bëgg a def seen rôle defaale rôle yu chambre de commerce te ñaar rôle yi bokkul ndax loolu CNP boo bokkul ci ñoom mënu ko so man nag dangaa am obligation ma toppatoo la sama xam la maa ngi nii jël cinquante personnes yóbbu leen euh, salon de l' agriculture du Maroc te mënuma ko ñàkk bañ a def parce que c' est des protocoles. bi nga euh, bon Dakaractu n'a pas eu Euh, bi nga posé le problème de chambres de commerce président bi daf ci wane maandute parce que dossier la boo xam ne xam naa imprégné wul de ce de ce de ce de ce de ce dossier là. mais président lañ fa wax lépp lañ fa wax lépp lu fa waay wax maandute la ci wane amul kenn comme mu fa tontu ne la lii amul amul kenn et c'est normal comment président nga mën a toog. tey muy doog di ñëw première kii de lii nga dëkk wax dara mu di la ci toog. mais est-ce que le moment aussi était approprié pour que. bien sûr problème mu chambre de commerce. parce que li ñu am seen conflit ak non ko wax ne ko. la ma fa xam nga la ma ne ko dama ne ko président texte bi mooy dama ne ko dama ne ko président la limitation des mandats et de respect des calendriers électoraux doit aussi s'appliquer au secteur privé. parce que ñoom ñoo ko wax foofu ñoo toog foofu di wax naan waaw war nañoo jéem a ànd ndax tamit lii ja ñoo ko wax ñoo ko commencé ma dégg leen man ci avant mujjee wax ji bokk bi ma waxee Ablaye Sow ci topp mais ñoom ñoo ubbi buntu war nañoo ànd kii toog fii kii toog fii kii wax kii wax nangam man leen ma ne ko président loolu boo bëggee mu dañ mais dañuy respect calendrier électoral de chambres consulaires limitation des mandats tamit ñu appelé ko secteur privé wala ñu defal leen élection des représentativités comme ni comme ni. comme ni ko central central ay def xam. kon du am loolu kon président du fa toog sax pendant deux heures de temps mais encore tamit xam nga dafa am réew soo toogee kilifa da nga koy leer xam nga président Macky Sall dafa toog ne am na ci dossier yoo xam ne dama ci dë dama ci dëgg sama xam nga wax na ko liiral lii liiral lii. annule le deuxième tour du scrutin des élections de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar tenu le 22 août 2010 2010 dans son entier. la réer la cour d'appel. cour d'appel de Dakar. confirmé par des arrêts de cour suprême moo annulé ko nga xam ne buñ ko annulé dañ ne dañoo war a dem defaat. Mhm. élection élection waaw. ñu dem kenn def ko gis nga tey pour vérifier rek justice ni mu mhm. normal mhm. daf ko rendre exécutoire tey tey. démb lañ ko jëlee mais lii doo ko wax président. ne ko une décision de Cour suprême ñu ne la eh, ngay gérer gérer 3 milliards de budget ñu ne la annulé nañ ko nga xam ne nii tey détournement des fonds publics la parce que yaa ngi gérer lu ñu la joxul décision justice moo gën a fort lu mën a doon moo gën a fort nomination léegi nag yii yëpp nag buñ dikkee dañ koy wax président attirer ci attention parce que ñun ñun waxuñ kaasuñ de man dama wax on attire votre attention sur des faits comme ça